dindi arrière plan image yaa ngi gis boo xoolee mi ngi bind fii goodbye green screen maanaam di wane ni ñoom seen logiciel bi ñu def nii dina tax nit ñi doo du soxla ñu utiliser ti fond vert waaye logiciel bi nag mënul remplacer fond vert parce que c'est impossible fond li mu mën boo defee sa fond vert ni nga ko mën a dindee ba mu mel ni yow yaa nekk fi nga def arrière plan loolu logiciel bi mënagul loolu xëy na nag euh, li ñu koy travailler dina dem ba dina set incha parce que ni muy setee ci image bi ñu lay woon promotion bi ni publicité bi pour mu sa image seetee nii il faut mu nekk fon bi nga di nga gën dindi li si ëpp dafa nekk benn bu maase moo lay gën a dimbali su amee ay couleur yu bari mën na indi jafe-jafe bu dee tam nit ki détaché wul si ci arrière plan bi image bi bi ñu koy photo dafa sës si arrière plan bi mën na indi tam ay tuuti jafe-jafe voilà. mais daal pour dindi arrière plan vidéo la mën na servir parce que léeg-léeg di am vidéo yoo xam ni. defawuñ ko fond vert te da bëgg dindi arrière plan bi mën nga ñëw essayer site bi su deñee comme ni nga ko bëggee baax na bu dañul après nga euh, xam ni dañul peut-être ay euh, Premiere Pro logiciel yu efficace lañ ci yooyu su dee maîtriser nga ko moom euh, ñi ko maîtriser mën nañ ci def loolu incha allah léegi site bi moo ngi tudd Underscreen Underscreen la tudd pour mu ngi nii Underscreen point comme ñii moom remove background bi ñu warewoon ker ci vidéo bi passé ñoom ñoo ko moom di nga boo demee remove bg muy remove background boo wàccee ci suufa suuf wàccee ci suufa suufa site bi waaw ñii ay développeur loo xam ne yu bari lañuy defar ci internet yoo xam ni dañ koy monétiser ak ay publicité ak ay abonement moo ngi nii vidéo background removal ngay cliquer soo ko cliquer automatiquement page bi mooy ubbeeku mooy mooy version remove bg bu bu vidéo léegi gis nga publicité bu la defal fii di nga wan ne comme ni nga xam noonu lay traité vidéo la woon ci nga vidéo bi ci nga ginnaaw gi suuf la dindi na background bi après mën nga def couleur bu la neex wala vidéo et cetera dinañ la ko wan. léegi fii comme comme comme mook euh, remote bg bi ñoo am ni ngay dugal rek da nga cliquer fii dem ci ordinateur bi dugal vidéo mën nga fii cliquer fii dugal gif comprendre nga mën nga tamit maanaam jël lien bi cliquer ko fi bu daal lien bu nekk ci internet mën nga dugal lien bi fii wala contrôle V. yi nga format yi muy supporter moom la la defal fii MP4 WebM OOC ak MOV ak GIF GIF xam nga image la mais image la boo xam ni ci vidéo la gën a jege ko photo waaw moo tax ñu boole ko si benn yoon comprendre nga voilà fii la boo fi dindee vidéo même may na la nga mën koo def li nga xam ne mooy GIF noonu la léegi boo xoolee ci suuf lu mu wàcc di nga wan nañu ni green screen yi daal jaratu ko ngay def fond vert pour mën di dindi ay arrière plan jaratu ko waaw na ko ba léegi <laughs> voilà xoola fii wan nañu dem am na compatibilité ak Premiere Pro ak After Effects waa nga bàyyi ko xel bu dee dangay liggéey ci logiciel yi voilà. léegi ñu dem directement wan la na koy utiliser dangay ngay cliquer fii dem jëli vidéo bi léegi nag bu dee vidéo boo am sa vidéo la mun nga cliquer jëli jëli ko fii bu dee vidéo boo bëgg a télécharger après dañ la ko wan soo cliquer fii mën nañ cliquer léegi ñu dem xooli vidéo bi ñu bëgg dugal léegi ñu xool euh, vidéo ñu ñëw ci ab exemple ñu jël vidéo Sadio Mané bi xool lan la ñu ci dindi ak lan lay bàyyi voilà ñu jël vidéo bi exemple voilà waaw mu traité ko comme vidéo taxul mu gudd trop waaw mi ngi koy traité ñu xaar mu xool li mu ci war a bàyyi ak li mu war a dindi voilà mu ngi cinquante pour cent mu ngi cinquante pour cent abonné bi de moom daa mel ni supprimé bu ko ak fii nii ci kanam waaye lii mu bu ci bàyyi dina baax parce que bokkul ci arrière plan bi wax dëgg yàlla. xool traitement bi jeex na voilà ci nga traitement bi jeex na mais ji nga dindi bi setul voilà dindi bi des na Sadio Mané bi dindi bi tane na mais fii abonné wi di nga léeg day dem di ñëw kon mu ngi poser problème gis nga déjà ñun di beneen vidéo xool indi beneen vidéo bu ñu amee vidéo bu mu di normal ñu soog la wan option yi ci des indi vidéo bi nga xamante ni benn photo lañ ci def li ci des image ay ñuul la amay bind suñ nangul euh, dindi ba mu set ba léegi ñu dem indi ji image yi nga xam ne moom la looy seetlu gën a yàpp muy image boo xam ne ginnaaw gi benn fond la <laughs> parce que boobu mooy gën a yomb ci moom ko voilà. voilà ji nga vidéo bi ñu dugaloon daanaka benn foto euh, ji nga ba léegi itam day am ay jafe-jafe ji nga pour feeñ gis nga voilà kon léegi ñu supprimer ko ñu dem wari image boo xam nag benn kii la ñu ñëw site bi nga xamante ni ñu cliquer fii ci accueil bi mooy sa Pixabay Pixabay comme Pixels Pixels nag moom donte am na ay benn benn vidéo mais euh, photo mooy point fort am site bii nag di bay moom photo ak vidéo en même temps yépp la bëri la waaw te libre de droit voilà boo bëggee daal image yooyu teg background moo xam ay image géej la ay fore la ay ville la ay objet ak nit lu mu ti doon soo duggee fii di nga am video am il suffit rek nga ñëw fii nga rechercher li nga xam ne moom nga bëgg a def par exemple fii bu ñu defee par exemple plage. pour ñu am image boo xam ni arrière plan bi dafay beige wala dara daal voilà loo xam ne day set voilà bii ah, def nañ place yu xool bii xam nga bu fekkee suuf bi rek mooy génn ci ginnaaw loxo bi ba vidéo bi jeex dina dinañu arrangé mais ñu xool beneen bu xaw a gën a set peut-être kii moom détaché na ak ginnaaw gi peut-être nit la te arrière plan bi xaw na détaché ak moom tuuti waaye ñu xool beneen bu ñu gisul beneen ñëw ci bii ñu xool moom dinañ gis beneen vidéo boo xam ni. bi itam nit ki xaw na détaché ak arrière plan bi voilà mais ba léegi boo xam ne fond bi daal benn couleur la la la bëgg ñu gis su fekkee am nañ ko ñu dugal ko suñ ko amul nag après ñëw si yooyu testé yooyu ba xam lan la ñuy jox voilà yooyu ñu xool bi vidéo bi ba xam lan lay wax moom waaw ñu play ko vidéo bi daa mel ni set na mais dina am daal lu dina am lu lu nangul dem parce que bant yi image yi féete ci ginnaaw dafay dafay des voilà bi yaakaar naa du ko dindi ni mu ko bëggee ñu indi boo xam daal da koy dindi bu set ce que veut dire xanaa ñu dem image bu femme boobu rek dafa mel ni moom arrière plan bi détaché wu na quoi mais moom ay couleur maanaam moom fi mu taxaw ak fëley nekk ci ginnaaw di feeñ dañoo sorante sa qui fekk dafay mel ni mooy gën a set ñu play ko ñu xool lan la ñuy jox te fii te vidéo bu gàtt la waaw gisoo kii yaakaar naa dina tane voilà léegi boo xoolee ba nga ne am nga sa vidéo site bi Pixabay bi nga bëgg a euh, télécharger fii ngay ñëw télécharger gratuitement lañ defal bu ñu xoolee suuf licence ndax dañ koy crédité defal nañu libre pour usage commercial pas d'attribution requise maanaam bii soxlul ngay bind dara sa suuf vidéo boo ko jëlee voilà lool la ñuy wax jaru ko boo cliquer télécharger wax da lay indi ay option option bu si gën a mag ji nga mooy full HD euh, mu ngi nekk 1920 1080 après mu tegal ñu si HD muy 1280 720 après nag mu wàcc yeneen kale yi standard yi euh, bii moo ci si leer yi bii moo ci gën a suufee mais nañ jël bi waaw bi bi mais vidéo sa gudd du diis nañ jël voilà 1280 720 bi ñu cliquer télécharger voilà gis nga dugal ko fii téléchargement voilà léegi su doon nag ñun terewul obligé wuñ ñu ñu def attribution mais dañoo bëgg a def attribution mën nañ copier fii ñu copier fii ñu dem coller ko suñu suuf vidéo buñ bu dee vidéo bi ci lañ koy dugal ñu copier suuf vidéo ce qui fait que gis euh, lii dina xam fan lañ jëlee vidéo bi ñu def exemple mu mën fa cliquer ñëw mën a jël même vidéo bi loolu lay jëriñ voilà léegi ñu def ñu dem ci suñu sit ñëw fii cliquer wala ñu def ko drag and drop comme ni ñu la wax sànq xëcc ko nii teg ko voilà xaar mu traité vidéo bi ba xam lu mu ñu jox ñu xaar kii ba xam dina moo moo ko moo ko raqam ji mag ji ak raq ji kan moo ci gën a kan moo ci gën a efficace waaw ji nga daa li ma ci foogoon la de waaw arrière plan ba des na de parce que bu femme bi di ñëw arrière plan bi day dem mais bu fekkee nekkul gis nga mu téye lii def ko arrière plan mais ji nga bu femme bi ñëwee mu maam lu tax parce que su fi su bi ñëwagul eh, dara eh, eh, kii bi nekk nekk fi arrière plan géej gi day gis asamaan si kon moo war a nekk arrière plan asamaan si lay dindi conserver géej gi ak kër yi su femme bi ñëwee femme bi mooy nekk ci kanam caméra bi mu ko mu jàpp ne femme bi kon mooy objectif bi mu war a téye dindi ginnaaw gi moo tax gis nga stable bu fem bi ñëwee day leer mais bu ñëwul gis nga day am problème comprendre voilà léegi ba léegi mun nañu xool beneen vidéo bu gën <laughs> voilà bii dafa sant jaxate quoi ñu xool beneen boo xam ni ñu xool image lan la ñuy tàppi sax euh, ñu tàppe enfant xale yi des fois ñu teg leen ci lu weex wala dara voilà yaakaar naa bu ñu tàppee enfant xëy na ñu am voilà comme exemple bi bii bu ñu ko dinoon day set wecc voilà voilà waaw fii yaakaar naa dinañ dinañ am bu ñu mën a dugal ñu wàccee xool terewul après gis nañ ci kaw sax lu ñu mën a dugal mais ñu wàcc xool rek voilà. bii tam bu ñu ko dugaloon image d' insecte benn fond la voilà léegi ñu wàcc fii bi même ñaari xale yi di fecc bu ñu ko jëloon xëy na non bu ñu bu ñu mooy li ñu daloon fee moo ñu dalaat voilà waaw ñu xool ba xool fii xala bi am na arrière bu am couleur waane ñoom ñi ngi ci kanam te bougé wuñ commencement vidéo ba ba fin bu dee duñu bougé rek dina baax waaw yaakaar naa bougé wuñ ñu téléchargé voilà. Talla Sall parce que bougé wuñu comme bougé wuñ dina war a baax xam nga remplacé ko vidéo bu njëkk bi comme ça bañ a nekk ñaari vidéo si biir ordinateur bi voilà léegi ñu ñëwaat cliquer fii dem jëli suñu vidéo ñëw image double clic suñu vidéo xaar ma traité ko voilà tëj fii xaar ma ko voilà sëñ bi bu ñu jugoon génn comme femme bi day am problème mais ko ñoon benn place lañ toog commencement ba fin. te sori nañ ginnaaw gi may garab yi feeñ ak yooyu xëy na looy seet dina mën a xam ni ñi ñoo nekk ci kanam mu téye leen ginnaaw gi mu éliminer ko 100 pour cent te loolu foog naa ko laal dañu xaar traitement bi jeex parce que toujours nag qualité bi ngay am mi ngi dépendre si image bi nga am détachement wu li nga bëgg dindi ak ak li nga bëgg a téye waaw ñoom seen diggante lu ci nekk waaye gis nga bii xaw na clean waaw donte dina am des fois ay affaires yu ndaw yuy génn ci reboor yi xaw am tuuti ay affaire mais yooyu mën nañ ko mën nañ ko tolérer quoi dans l' ensemble waa tane na gis nga mooy ni nga xamante ne noonu lañ koy noonu lañ koy dindee léegi boo dindee ba pare gis nga boo ñëwaatee fi mu indil original bi nga ñëw fi mu ñëw biñ dindi gis nga pas mal voilà léegi mun nga cliquer fii change background soo cliquer change background joxal na la ñetti option vidéo couleur wala image bu ñëwee vidéo lan la ñuy def mën nañ télécharger li nga xam ne mooy beneen vidéo def ko background comprendre loolu permettre na ñun ñu def ko télécharger neen vidéo def ko background xaaral ñu jox exemple bi télécharger beneen vidéo xaaral ñu dem ci vidéo géej yi ñu yi ñu yi ñu kii woon sànq vidéo plage yi ñu ubbi woon sànq voilà euh, waaye ñoom ci foore lañ toog di foore ah, bi bële grave du si dara c'est pas grave télécharger voilà ñu téléchargé fii voilà léegi ñu ànd nañ suñu site ñu def upload background léegi ñëw dugal suñu vidéo gis nga vidéo géej bi mu nekk na arrière plan nga xaw na set parce que fond yi yi doon bàyyi dafa xaw ndoog tuuti arrière plan bi moo tax ji nga gën a set gis nga léegi am nañ suñu vidéo am nañ arrière plan vidéo comprendre nga léegi mun nga dem nga recherche fii itam background background yoo xam ne ay image yum la site bi defal ci biir la par exemple bu ñu jëloon bi def ko background gis nga lii lay mel background mooy arrière plan boo cliqué waate mun nañ ñëw ñu def ay recherche waaw ñu xool bal nañ bëgg a def arrière plan mën nañ def bu rouge bi waaw comme famille la gis nga arrière plan comprendre nga war nañ la ni ñuy indee vidéo ni ngay recherché ci biir logiciel bi yii nag ay en enregistré la rek voilà gis nga boo cliqué bii mooy ñëw si ginnaaw boo cliqué bii mooy ñëw genre tali la day mel dañoo toog ñaari tali la ñoom ñu toog ci diggante tal ci fi nit ñi war a jaar ñu toog fa oto yi rombante voilà et cetera et cetera nga toog mel ni fi ñuy defee escalier ñëw toog voilà yu bëri nag yaay xool ci nga ni ngay def jëm nii rek di xool voilà xool li nga fi bëgg dugal dugal ko bii genre géej et cetera et cetera gis nga nii ngay def ba xool yi nga bëgg dugal yëpp nga dugal bi bi nga si bëgg dugal nga dugal ko comprendre nga léegi deuxième bi muy couleur boo ñëwee couleur moom comme sànq la rek yaa xool ban couleur nga bëgg a teg seen ginnaaw gis nga couleur bu weex bu rouge ji nga bu violet bleu et voilà gis nga yaay xool léegi walla nga ñëw fii image soo ñëwee image gis nga ñu xëcc ko mu sës pour lii moo tax ñu bëgg ko xëcc dalay may nga dem jëli image bi la neex tam teg ci ginnaaw comprendre nga mën nañ ñëw fii ba léegi ñu télécharger image boo xamante ni rafet na xal ñëw accueil bi ñëw jël benn image boo xam ni image bu rafet la voilà dugal ko ci arrière plan voilà fi ay vidéo la ñu par défaut ñu ñëw sélectionner photo sélectionné photo daal di def recherche lan euh, foore voilà indi lañu image foore bu rafet ñu jël bi voilà cliquer télécharger voilà alhamdulilah boobu télécharger enregistrer daal di ñëwaat suñu site internet télécharger image bi ñu bëgg def arrière plan. moo ngi nii ñu double clic ko ci nga image bi ñëw na forêt bi ñëw na comprendre nga su la neexee tamit mun nga sélectionné ci image yi nga am logiciel bi dugal na ko voilà image yaa ngi nii mun nga teg bi genre gaar la bi genre terrain football bi benn ville la à des plans mun nga choisir fii choisir fii lu la neex gis nga arrière plan voilà fa option yooyu moo fi am boo bëggee supprimer nga cliquer fii recette gis nga mu defal la ko comme commencement nga cliquer mu close fii la ñuy defee background bi ni nga ko bëggee bu dee da ko bëgg def ci biir logiciel bi fii léegi bu ñu ñëwee fi lu mu ñu defal fii pour bouton partage la boo nga ko partager comprendre gis nga day enregistrer vidéo bi defal ko pour nga partager ko comprendre comme du gudd mën nañ ko xaar du yàggal vidéo bi trop quoi pour lépp leer après boo ko seetaanee di nga comprendre logiciel bi yëpp li mu mën nga char léegi mën nga ñëw fi nga télécharger ko téléchargement bi nag jox na la ay option boo cliquer fii directement da koy télécharger vidéo MP4 soo cliquer fii nag mën nga ko def GIF xam nga GIF mooy vidéo mooy photo yoo xam day def animation am benn geste bu muy ko répéter di ko répéter comprendre soo ñëwee fii mën nga ko def muy PNG animé boo cliquer fii mu convertir ko nga télécharger soo ñëwee fii mu def single frame maanaam image bi yëpp lay jël mu def ko benn photo par benn photo xam nga vidéo boo mënti gis ci ñi xam vidéo peut-être waaw vidéo boo mënti gis ay photo la. vidéo bii ngay gis nii ay nit la ñu ngi ree di yëngatu di foog seeni doom mais appareil eh, caméra bi bi mu ko doon filmer nekkul ni caméra bi comme ni ñu ko foogee day mel rek day enregistré comme comme vidéo nii non vidéo ay photo yu bari yu yu ñu taqale la mooy nekk vidéo su ko defee soo koy seetaan jàllale bi mu koy jàllale benn photo beneen topp ci beneen topp ci day gaaw ba sa bët du ko mën a ràññat leen espace yi su ko defee mu nekk geste yi ñooy ñëw mu nekk vidéo mu capté mouvement yi noonu la ñuy capté euh, image du vidéo ay photo yu bari ngay jël ci instant bu ne su ñu dawee daw bu gaaw doo mën a gis différence yi mu nekk vidéo comprendre nga léegi vidéo bi fii lañ koy yemale avant ñu koy jeexal nag fii du tuuti ñu wax la fii version pro bi la nga bàyyi ko xel tam ñoom def nañ version pro tamit version pro bi mooy lan mooy du am watermark watermark mooy lan xaaral ñu wan la ko tamit ba léegi euh, ouvrir yaa ngi gis ni bind bi indi screen bi dafa dafa leerul bu baax dañ ko fay def lii mooy watermark mooy xàmmeekaay buy wane ni logiciel bii nga ko defaree. léegi nag boo ko dee jëlee version gratuite bi ñoom dañ ciy def publicité bi su fekkee nag version pro bi nga jël publicité bi du ci am loolu mooy watermark quoi nga bàyyi ko xel. voilà moom lañu la defal fii no watermark soo defee version pro bi watermark du ci am fii la bindu nii ci suuf du feeñ bu baax nag parce que transparence la mais boo ko téléchargé di ko utiliser fenn day génn surtout maa ko ci fond bu ñuul wala bu fond bu bu baax a vidéo bi boo defee boo boo boo fayee version pro bi du ay quelques secondes la lay defal de non mën na la defal ay minutes wala ay heures ça dépend sa vidéo nu mu guddee rek da ko traité comprendre nga fii mu woon la boo defee version pro ba léegi di nga am full HD comprendre nga qualité bi nga dugal qualité boobu lay génnee fii mu defal la ji nga vidéo MP4 la moom lay nekk tam fii fii mu defal la ojo bi tamit da supporté supporter même qualité ojo bi même bu audio bi amee ay différence dina ko supporter comprendre nga loolu mooy li nga moo nekk ci version pro bi soo doon dem version pro ngay cliquer soo cliquer fii nga dugg créer compte abonné pour dem version pro comprendre que voilà mooy li nga xamante ni moom moo si am bu ñëwee fii pricing bu ñëwee gis nga abonnement la fii booy abonné la ji nga par weer gis nga abonnement bi gën a yomb ji nga neuf ngay fay par weer mun ngay def euh, video 3 minutes voilà 3 minutes gis nga loolu tuuti na nag trop quoi fii <laughs> paiement bi booy par benn vidéo la da nga bëgg traité benn vidéo cinq cinq dollars ngay fay voilà xaw naa seer nag pour logiciels yi ñoo ko gën a efficace pour dindi vidéo dañ leen ko doon wan muy un de screen pour boo amee ay vidéo yu gàtt yoo bëgg dindi fond yi te yoroo logiciel buy dindi buñ ko ko indi fii su dee vidéo bi arrière plan bi détaché na ak objet bi wala nit ki wala arrière plan bi benn couleur kese la nekk ci lay gën a efficace nga bàyyi ko xel kon vidéo fii lay yem ñu leen di remercier ci seetaan ko doon seetaan di leen jox rendez-vous ci vidéo bii di ñëw incha allahu rabbi jërë ngeen jëf